wa alihi wa saxbihi wa man walah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yi 2STV ak mbokki origine fm 88.4 ñu àndaat ak sen seen jotaayu daara ji ñu tudde tafsirul quran ngeen ci ànd ak seen mbokk daara Abdullahi Gaye mu leen di nuyuwaat bu baax a baax nag di leen ziyaarawaat bu baax a baax di ñaan yàlla subhaanahu wa mu def ñu dëgg dëgg jullit waaye dellu rek di ko ñaan nag xéewalug saa yu ñu koy wuy ji yàlla ñu defal xéewalug ñu wuy ji ko fekk nii suñu imaan muy suñu ngëm yàlla dara yàqu ci yàlla ñu suñu borom defal loolu suñu ngëm mat ba bu ñu ko présenté suñu boroom mu kontaan ci dañ ko ko indilee ñu ngi woon ak yéen seen saar bi di suratu Ali Imran ñu baal ma suratu nisaa jotaayu tafsir bi ñu mujj def ñu demoon ak yéen ba aaya cinquante neuf tey ñu war a jël aaya soixante ci seen saar bii di surat Ali Imran borom bi subhanahu wa di wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko nettali mbiru ni ma leen waxoon njiit li doxoon ci diggante yahud bi ak nasaraan bi ci diggante yahud bi ak jullit boobu nga xam ni naafiq la woon jullitu entre guillemets mu ne alam tara xanaa xooluloo xanaa gisuloo ila alladina ci gaa ñi nga xam ne yazumuuna dañu wax nee na ñooy zaama mooy neenaay mooy foog na moo tax borom bi naan zaama alladina kafaru an lan yubaatu ñoom de nee na ñi nga xamante ni dañoo weddi yàlla dañoo njortooy yaakaar ni seen njort li mu leen jox mooy kenn du leen dekkal yàlla ni qul bala wa rabbi la na suma la na bi ma yàlla ni nee leen giñ naa ci borom bi ni des na leen dekkel kenn ku si nekk ku ñu wax ko la mu defoon kon yàlla ni yazumuna ñoom de dañoo jort dañoo yaakaar ni te seen yaakaar nax na leen ni annahum ñoom amanu gëm nañu bi ma unzila ilayka ci li ñu wàcce ci ñoom wa ma unzila min qablika ak ci li ñu wàcce ci ñi leen fi jiitu ñoom de dañoo yaakaar ni ci seen yaakaar li mu leen jox mooy dañoo gëm li ñu wàcce ci ñoom ak li ñu wàcce ci ñi leen fi jiitu maanaam bi maa unzila ilayka jullit bi moo ko moom maa unzila min qablika yahud ba moo ko moom ñoom de kenn ku si nekk loolu lay wax kii jàpp ni ab jullit la kee nee na it jàpp na ni ab yahud bu gëm la mu gëm la ñoom de loolu la wax te ba pare yuriidu na ñuy namm an yataxaakamu ci ñu attewoo ila taaxuuti ci tooñkat bi ñuy wax Kaab ibnul Ashraf ñu koy woowee taaxuut ndax dafa jalgati ëppal lool doon koo xamante ni ku bew la doon koo xamante ni seytaane bu mag la moom kaabu bi ñu bëgg a dem attewoo ca moom jullit bét bëgg a dem attewoo ca kooku yahud ba bëgg a dem ci Muhammad Seydina Muhammad sallallahu alayhi te moo ne day moom mi bëgg a dem ci taaxuut ni dafa bëgg a atte wu ji foofu day xam na ni foofa baaxul ndax waxat umiru diggalee foon nañ leen ay yak ay furu bihi ñu weddi ko dañ leen waxoon ne kooku na ngeen ko weddi waaw xamaloon nañ leen ni kenn du gëm taaxuut boo demee yàlla ngi ko wax ci baqara fa man yakfur bi taaxuut wa yumin billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fi saama laha yàlla nee na képp koo xamante ni weddi nga taaxuut muy seytaane ñi nga ànd ak moom yépp ak bewkat yi nga xam ne dañuy weddi yàlla yépp nga gëm yàlla nee na ngoy nga ci buum gi nga xam ni du firiñtiku ci nga ngoy buum gi dul firiñtiku nee na ci nga ngoy mu ni kon waxaat umiru an yakfuru bi ñoom day diggaloon nañ leen ñu weddi ko waaye rek mu ni wa du sheytaan waaye sheytaane moom namm leneen mooy li mu namm mooy an yudillahum ba mu sànq leen dolaalan ak sànq ak réeral baidan gu sori loolu la yàlla loolu la seytaane namm ci ñoom taaralal leen lu dul dëgg pour sànq leen réeral leen réeral gu sore sore sore yàlla ne wa ida qila lahum ñoom de suñu leen waxee ni leen taalaw ñëw leen ñu àtte leen ila ma anzala allahu ci li yàlla wàcce wa ila rasuli ak ci li nga xamante ni mooy li yonente bi alayhi salatu indi di leen ko wax nee na mu ñu leen waxee ñëw leen ñu àtte leen ci alquran ak sunna raayta almunafiqina da ngay dégg naafiq yi yasudduuna anka sududan di la fekk ak fekk di gaar di bañ ko àtte woo ci alquran ak sunna allahu akbar mbokk aaya bii aaya bu garaaw la ndekete képp koo xamante ni yaa ngi bañ a àttewoo ci alquran ak sunna fekk ni force wun la loi ya nekk ci sam réew ni la yii ngay àttewoo amoon nga sañ-sañu àttewoo ci alquran ak sunna nga lànk ni duma àttewoo ci alquran ak doon donte le am ki am naa si cëggal guy am ci sañ-sañu nu ma neex nee na yow yàlla fii lim la traité mooy raaytal munafiqina yasudduna anka suddan da nga gis naafiqi di la gàllankoor ñu xam ni bëgguñu ko àttewoo ci ci lislaam wax la ko tey am na ñoo xam ne bëgguñu koy àttewoo ci lislaam loolu rek lañu bañ seen rab moo nanguwul lool nga léegi baatub laïcité sax bëgguñu nga tudd ko boo koy tudd ñuy am ak yow problème waa ah, dañoo bëgg indi kenn xamul ci réew mi nañ fi bàyyi laïcité bi loolu la ñu gëm kenn ku ne jàpp ni loolu rek lañ fi war a dem ba ci li yàlla tëral sax bëggatuñ ci àttewu ci lislaam léegi nit day faatu yàlla séddaleel ko boppam ca miraas ba nañu ko defee woon leeraloon nañ leen ko ci mu yuusikumullaahu ndax yàggul ni ci saat bii la nga gis ko yow non man ak yii doyuma pourquoi góor ñi war a am ñaar ñu jox jigéen ñi benn dañ dem ca tribunal ba mu àtte ñu tribunal ba mu bu demee moom nekku ca moom xamul bu ñu bojj bu ñu soq moom daan ñëpp rek yem kenn ku si nekk part égal ñëpp a yem doomi bàyyi lañ ñoom doom doomi góor gi lañ góor gi leen jur wala mère bee leen jur ñii la fi bàyyi amul kii mooy góor amul kii mooy jigéen amul kii mooy yooyu yëpp amul kenn ku si nekk yàgg sa moom yeneen tolloo li ngeen di am na ñoo xam ni loolu lañ bëgg waaye booy wax wax yooyu kii non sa waay kii nañ ko teer a arrêté de parce que kii yi muy wax léegi dafay indi affaire yi l'islam dafay indi yeneen i problème te ñun ñu ngi dund ci jàmm ak parce que bëgguñu ko laal loolu moo tax yàlla ni am na ñoo ñoo xam ne ñoo jër yërëm wa idaa la lahum gars yi nga xamante ni buñ leen waxee rek wax rek rek wax lay doon de doon sax lu sori ni leen ñëw leen ñu àtte leen ci li yàlla wàcce akoob tam ak li ñu wàcce ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ak sunna si yonente bi nee na da ngay gis si saa si rek naafiq yi commencé di la gàllankoor ak di la won ginnaaw di la dëddu du ñu nangu ku laal loolu bàyyi leen ak seeni caaxaan rek bàyyi leen ak seeni caaxaan lañ bëgg sëy sax bu ñu koy takk ñu ngi koy takk ca jàkk ja waaye bu ñuy tas ñun deet nañ dem ca tribunal parce que kat dañu amoon papier de mariage teg ko teg ko ni papier de mariage xëy moo tax euh, lu lislaam digle boo ko ba wee rek abi fitna da gis góor gu nekk ak jabar dem ba mun sëy ba mën a tolante ñu tas ko waaye bu ñu ko tasee benn kayit téye mbir ma ñu ni mooy mooy mooy mooy certificat de mariage xëy na góor gi wacc na ndaw si tey bëggu ko wàcc lànk ni ko duma la may sa sa te bis boo fi amaatee jëkkër ma porté la plainte bigamie ñu boole la yàgg sa jëkkër tëj muy loi bu fi ne ndax lan sëy ba tas na waaye nee na fa mu war a tase du ci lislaam loolu doyul ci tas bi waaw sëy bi ñu takkoon ci lislaam joxe ñeent ak taraan si sa jàkka ja ñu takk ko imaam xutba ko defaral la këyit signé nee nañu loolu lépp baax na man na faa takke waaye tas bi bu mu yaakaar ni day ñëw foofu rek ñu ni kat nañu toog woo nañu ay seede seede yi teew nañ ginnaaw ba ñu jaaree fañ jaar yëpp waaye sëy bi mënatu la dem kon nag euh, may naa la sabar sëy bi tas nañu la noonu loolu mooy lii loolu informel la li nga def li formel mooy da ngay dem ca tribunal ba ñu tas ko soo ko deful ndaw si bis bu fi demee amaat beneen jëkkër ñu topp ko porté ko plainte ni ko bigami da danga am ñaari jëkkër donte la ci lislam amul ñaari jëkkër muy ay fitna yoo xamante ne mu ngi am mu ni kon da ngay gis bu loolu amee rek naafiq yi commencé di def loolu mu ne fa kayfa ida asaabathum musibatun moo nu ñuy def ba bu leen musiba dikkalee bi maa qaddamat aydihim ci li nga xamante ni jiital nañ ko maanaam musiba boo xamante ni ñoom ñoo ko def kayfa yakunu xaalum ida aqabahum allahu bi dunubihim bi wa bima jarat aydihim min al kufri wal maasi ayaqdiruna an yadfau anhum al adab moo nu ñuy def bu yàlla indee musibaam te musiba bi yàlla indi kat dara sababu ko lu dul ñoom ñoo ko sababal seen bopp su ñu defee seen dégâts yu ñuy def ba yàlla ñëw musibam nu ñuy def summa topp jaa uka ñu dikke la dikk ci yonent bi yaxlifuuna billahi di giñ ci yàlla ni in aradna nammunu illaa ixsaanan lu dul rafetal wa tawfiqan ak dëppale def lu baax rek lañ nam ñëw naafiq yi loolu la def bu mbir yee njàngee rek ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni woon laay ñun di wax dëgg yàlla ak mbaax rek ñu tax a jóg waaw gis nga yàlla nee du noonu ak mbaax ñu tax a jóg ak defar daal moo ñu tax a jóg waaye yàlla nee du noonu yàlla nee wulaay ka gaa yi alladina mooy ñi nga xamante ni yaalamu llahu maa fi qulubihim yàlla xam na li nekk ci seen xol yi mbokk yàlla kenn mënu ko nëbbu mën ngaa nëbbu ku neex ci àdduna mën nga ko nëbbu waaye yàlla la kenn mënta nëbbu yàlla moom suñu borom subhanahu wa taala kenn mënu koo nëbbu ba mucc mënul ne ndax yaalamu maa fi qulub li seen xol yi xam na ko xam nga mu ngi wax boo demee ci ñaari saar benn bi di suratul qiyaama yàlla nee na balil insaanu ala nafsihi basira walaw alqa maadira nee na nit ku ne coolee fi ne waaye kenn ku ne xam nga sa bopp ku ne xam nga sa bopp waaye yàlla nee na la kaay ci suratu la loo xam-xam xam-xam xam sa bopp maa la gën a xam sa bopp wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid maa la gën a jege sa buumi xol kon yàlla la gën a xam sa bopp moo tax yàlla ni ñoom ñii de dañuy coore waaye xamuñu ni ñoom naafiq yi yàlla xam na li ñu denc seen xol yi ulaayka alladina yaalamu llahu ma fi qulub yàlla xam na ñoom naafiq yi ni ñu weddee ak li ñu denc seen xol ci hypocrisie muy naafiq ak i pexe ak lu bon di la wax wax ñëw bul di la tuur lëndëm bu ñëwee deen wax di wax seen kàddu yi nga xamante ni day saf lem te fekk ni daara du ci dëgg yàlla nee na man xam naa li nekk ci seen xol ñoom naafeq yi mun na yonente bi alayhi salaatu wasalaam fa aarid anhum ñii na leen dëddu waaw ñii see boo rek nga multiplier leen multiplier leen par zéro ñii bul la joxati dara waaw ñii bàyyi leen rek ñuy coowandoo ci biir jullit yi waaw waaye nga teg leen foofu rek maslaxal ak ñoom rek bàyyi leen fi noonu bul xaw yi seen sutura bu leen wax dara waaye dañu xam ne moom yow yow xam nga ne yàlla xam na li ci seen xol ñoom waidhum mu ni ko waar leen bu baax waaye wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga nee na waa leen leen waaye wax leen leen ci seen bopp wax ju jotale balixan macha allah wax ju jotale beneen mbir la mbokk yi wa qul lahum fi anfusihim qawlan balixan wax leen ci seen bopp kàddu goo xamante ne bu ñu ko déggee dañ xam ni kàddu gu jotale la gu yegg si ba ci ñoom loolu it la muy wane xawlan baliix suñu ko bëggee di man di wax faaw ñu jàng am xam-xam loolu dafa am solo xam-xam bu yaatu fenn fu si nekk ak na na xawlan baliixan di fa jàlle di fa jàlle fu ci nekk it loolu boo ko bëggee def da ngay def fooy dem dangay def def bii bia fii lan nga fi war a mën a wax dëkk bii laa jëm dëkk bii nan lañu war a mën a wax maa ngi dem France ci misaal wala maa ngi dem Amérique wala maa ngi dem Espagne maa ngi dem Italie maa ngi dem fu ne bëgg naa fa def taaxu bokk na ci li doon yombal lool li nga doon def mooy boo yaa ngi jëm France nga jekku làkku tubaab ba ci ña ngay waxal dina la ci dimbali xereñ ca lool bu dee espagnol ba nga def noonu bu dee ñey def anglais anglais nga def loolu xawlan baliixan dafay sori mooy doom jullit yi lépp lu ñu mën a yokk ci seen xam-xam langue bu ñu ci mën a yokk nañ ko def loolu mënul apporter lu dul lu baax yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne ku jàng làkki nit mucc ci ñoom xam ngeen ni moos suñu mbokk moom di Tariq Ramadan yal na ko yàlla génn ci xat-xat yi mu ne euh, li mu liggéey lislaam moo bari mbokk yi Tariq Ramadan li mu liggéeyal lislaam moo bari euh, tubaab yi xamoon nañ ni moos duñ ko bàyyi nii rek bàyyi ko nii rek mu war fee nekk nii rek nii di def di wax waxam yi muy wax di jeexital ci nit ñi koo ko boole mu tëndoon un éminent intellectuel loolu ñëpp nangul nañ ko Tariq Ramadan saa yu masaan a jàkkaarloo ku mu ci masa jàkkaarloo rek wax yàlla ci suuf lan lay fore amul ku mu ciy jàkkaarloo te du la wàcc noo mën a toll ci tubaab yi ak lu sax xam-xam xereñ xereñ bu desul rek ñun la yéen ñaar débat télévisé ngeen jàkkaarloo wala débat intellectuel wala mën a débat contradictoire saa yu paree rek doo mujj fudul ña nga àndal di la yuuxu ak di la baraaw xamoon nañ ni bis bisam dina ñëw gars yi duñ ko ca bàyyi kon nag jaadu na ci jullit yépp ñu ñaanal ko yàlla na ko yàlla génn ci xat-xat yooyu parce que li mu daan liggéeyal islam bari na rek suñu réew mi bari na fii ndaw ndaw yoo xamante ni surtout les étudiants et les étudiantes islam intéressé na leen yàlla ngi ko jaarale ci taarix ramadan ñu ziar bu baax baax tabarakallahu sëriñ Mouhamadul Mansour si Jamil moom mi nga xam ne daan na ko indiloo baree baree bare ci réew mi bu ko masaan indi bu masaan di nekk amphithéâtre ñëpp xam ne tey ji mu ngi jëm université ñëpp ay ñëw les intellectuels toog muy jël ci diine ji sol costume am toog ak solom ni ñu ko nit xamee commencé rek ci daawa bi commencé di wax nga gis ni muy attiré ful yi dem na ba fu mu mas di ñëw ci France ñëpp xam ne tey mu ngi fi ñëw loolu dafa am ba ci suñu réew gis nga intellectuel yi am na yoo xam ni ñoom lañu gëm mooy njàngum li même li nga leen di leeralal si diine boo ko mënoon di wax ci seen langue si lay si si seen langue liñ ci jublu mooy xam nga wax dëgg yàlla bu ne seen langue nag loolu sax aw xas la nag du tàgg de parce que juddoo ci réew mi màgg ci réew mi waaye sa làkku réew mënoo kenn mënatu la cee wax ñaata yoon ñaata yoon la ma ay woo ni ma sa waay olof yi ngay wax léegi dee ko wàññi ah, man la ah wax dëgg yàlla su fekkente ni lii may wax mooy wolof yi ñuy wàññi wax dëgg yàlla ma xam ne olof nag tubaranke na man mi koy wax sax wóor na ma ni wolof yu woyof lool laay wax ndax doon tele falaa toll nit jàpp ni moom fii ne lii dis na waaye ñii kon mu ñu leen delloo woon ca wolof yi mag ñi daan wax fu ñu jëm kon ñoom doon nañ préféré koo xamante ni te jamono dina ko indi ci ba nit di di ko di def traduction du Coran en français ñii di ko def en anglais comme ni ñu ko binde di ko def publiquement ak di ko def ci télévision yi loolu dafay am solo wa qul lahum fii anfusihim qawlan baliigan waare bu mu mën a doon waare bu mu mën a doon loolu daf ci am solo macha allah yàlla defal dégg topp waaye yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne bu ñu dégloo daawa jël ko jëriñoo ko te xam ne loolu mooy njëriñu islam yàlla ni wama arsalna masuñoo yónni min rasulin ci ab yonent illa li yutaa biznillah lii tax ma yónni yonent mooy ngir ñu topp ko man dama fi nekk di yónni yonent ngir ñu koy moy déedéet waaw moo tax mu ni fa taatuhu taatun lillahi wa maasiyatuhu maasiyatu lillah yonent ku ko topp topp nga yàlla ku ko moy mooy nga yàlla te mosumaa yónni benn ndaw lu dul li tax ma yónni ko mooy dañu ko topp illaa li yutaa bi iznillah dama koo yónni ngir ñu topp ko ci ndigalu borom bi subhanahu wa loolu tax may yónni samay ndaw yàlla nee na li tax muy yónni ndaw mooy ñu topp leen mu ne walaw annahum doonte la ñoom nag bu doon ñoom ñii mu lay wax muy ñu weddi yàlla wala jullit yi nga xamante ni rëccale nañu wala naafiq yi walaw annahum id zalamu anfusahum bu fekkoon te di day suñu tooñee seen bopp gis nga yàlla ndekete li ngay def defe ni yàlla nga koy def yàlla nee na sa bopp nga koy def ndax la lay jural moo tax la mu lay jural moo tax yàlla id zalamu anfusahum ay law anna haulaai almunafiqina xiina zalamu anfusahum bi adami qubulu xukmika ci atte bi nga atte ñu ñàkk koo gëm ñàkk a nangu sab atte su fekkoonte ni dañoo ba ñu tooñee seen bopp jaa uuka dañu laa dikke yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëwaat ci yow bu fekkoonte ni ba ñu la tooñee dañoo ñëwaat ci yow fastaghfarullaha ñu jéggalu yàlla ñu jéggalu yàlla wastaghfara lahum rasul ñu ànd yit nag ak yonent bi alayhi salaatu salaam dem jéggalu seen borom wastaghfara lahum rasul ñu ànd ak yonent bi wala ñu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu mu jéggalul leen seen borom mu ni suñ ko defoon de la wajadu llaha tawaaban rahima kon dinañ fekk yàlla muy aji jéggalaa bari yërmande allahu akbar nee kon dinañ fekk yàlla muy ku mën a jéggale waaye dinañ fekk yàlla muy ku mën a yërëme la wajadu llaha tawaaban rahima dinañ fekk yàlla mu mën a jéggale waaye dinañ fekk yàlla it mu mën a yërëme bu fekkonte ni ñu defee lu ñaaw dañuy jéggalu yàlla ba pare ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu dolli ci jéggalu leen yàlla kon de dinañ fekk yàlla muy aji jéggalaa koon waaye dinañ fekk yàlla muy ku mën a yërëme yàlla teg ci nag mu ngi doon wax ba léegi ci gaa yi nga xam ni dañoo ni gëm nañ yàlla te doyloowuñu àtteb yàlla yàlla mel ni ku changé ton allahu akbar maa ngi ziare bu baax a baax a baax professeur Ahmed Dame Ndiaye yàlla ñu ko yàlla sàmmal yàlla ñu ko yàlla aaral ah, moo man waxtaan moo man def waxtaan bu jeexit ci ay jullit allahu akbar maa ngi fàttaliku ba ñuy defal les trois dimensions de la shahada lii daanaka mat na ñaar fukki at di ko def fee ca Thiès ca El Hadj Omar boobu rek si lañ koy soog a commencé sax di ràññee ci réew mi boobu jógee na Iraq ginnaaw jàngam doon professeur macha allah fii ci daarul muallimina bokk na ci suñuy professeur comme ni ñu leen ko waxee keroog bi muy indi aaya yi alam tara ila alladina yazamuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taaxut tey dem di dem bu koy commencé ni na yàlla dafa mel ni kuy ree kuy ree gaa yi ci li ñuy def ni yeneen bi waay kay kaay xool gaa yi ñoo mën a théâtre waay nee nañu way gëm nañu yàlla waaye gëm nañu yonent bi waaye bu gëm nañu li ñu wàcce ci yow te bu ñuy àtte woo feneen la ñuy àtte woo di ko topp bu yëg si waan fii ma bëgg a yëg si muy falaa wa rabbik nee na yàlla ba mu yegsee foofu dafa changé ton maanaam ni mu doon waxe naan walaw annahum id zalamu anfusahum jaauka fastaghfaru llaha wastaxfara lahum rasul la wajadu llaha tawwaban rahim loolu lépp mu ngi doon wax yu nooy waaye nee na bi mu yegsee fii dafa taxaw changé nag bu baax a baax a baax wa rabbik too bu gën a sérieux yalla ni giñ naa ci sa borom ni laa yuminuun ñii de du ñu gëm xatta yu xakkimuuka lu dul ne dañuy dem ba bu ñu bëggee atte wu ñu ñëw nga atte leen fii maa shajara baynakum ci li dox ci seen diggante fekk tolluñu ci bu ñu amatee problème gëm ni alquran ak sunna moo leen di àtte fekk yegguñu foofu ngëm newul ci ñu dañuy coow rek mbokk yi falaa wa rabbik waaw yàlla changé ton mer mbokk yàlla dafa mer fii mu toll ci téere bi waaw yàlla mer na de yàlla mer na ci suñuy comportement jullit bu dul doyloo alquran mukk miraas mu ñu wax rek léegi ñun nañ ko yóbbu tribunal sëy bu ñuy tas nañ ko yóbbu tribunal lu mën a xew rek léegi nañ ko yóbbu waaye diine doyuñu ñu ngi julli ñu ngi woor waaye yàlla du ñu séddale suñu alalu baay yàlla nee na ku koy def gëmoo ku koy def yàlla nee na gëmoo ak lu mu mën a doon ci yépp nag boo ci doy loowul diine parce que li tax ma lay wax loolu mooy suñum réew permettre na la dañu di état bu laïque la ni mu la permetre ni la boo amee miraas nga yóbbu ko ca ca ca ca borom xam-xam yi ñu miraasal la ko na ko lislaam waxe bu la neexee nga ñëw fii ci tribunal bi kon boo demee ca tribunal yow la neex na leer sëy ba it la même chose ak yeneen ak yeneen ak yeneen am na yoon yum la léegi boo demee ci tribunal da nan la qaadi baa ngi ñu ziyaare bu baax al imam Majib Mbay nga xam ne mooy qaadi bu Cees dafay nekk léegi ca tribunal la boo bëggee ñu atte la ci lislaam boo demee moom mu atte la waaye da nga yónni ko fa ñukk ne man xaadi bi doyuma dama juge bii toog fii di atte fala wa rabbik laa yuminuuna xata yuxakkimuka fi ma shajara baynahum yàlla nee na du ñu gëm mukk mukk mukk lu dul ne bu ñu demee bay attewu ci seen xew seen diggante dañuy ñëw ci yow nga atte benn su ma topp nag laa yajiduuna du ñu am fii anfusihim ci seen xol yi xarajan ñëg gi ñaggu xol ak naqar mimma qadayta ci li nga àtte loolu it beneen mbir la da ngay nangu yonent bi àtte la waaye bu la àttee ba pare da ngay d'accord ca la mu la àtte mais moom dañ ko mirage non non dañ ko def ci l'islam rek mais xamal l'islam it vraiment li mu def kenn xamul lan la quoi pourquoi rek mu bëgg ñëw noggatu nit ñi ah ah sama jabar mu ngi war a am ñu jox ko genn wala jox frère am bi parce que mooy da nangu nii rek mais yow sa xol nanguwul tax mu ni non seulement da ngay nangu waaye su ma lay du fii anfusihim harajan mimma qadayta du ñu am xol bu xat ak naqar ci li nga àtte wa yusallimu tasliman yàlla nee na dañuy wommatu ak wommatu nangu li nga xamante ni moom la borom bi subhanahu wa taala digg diggal nangu it li nga xamante ni la borom bi subhanahu wa taala dogal ni nii la bëgge mbir yi tëddee nee na ku baax de bu boobaa day nangu noonu ko yàlla santaane ak ni mu ko tëralee da ngay nangu ni lii mooy li baax te nii rek lañ ko war a mën a defee ba am ngërëm suñu borom subhanahu wa mooy nangu li yàlla dogal gis nga jullit euh, bu yàlla dogalee bu yoboo nga nangu de soo nanguwulit dutee tee li yàlla tëral mooy am dina la turiidu wa uriidu wala yakunu illa ma uriidu da ngay mbir ma namm mbir la ma namm nag mooy am soo réglee ba ànd ak man ci li ma namm man dimbali la ba la bëgg am soo fii ut nag beneen i feem li ma bëgg dina am te yow li nga bëgg du am yàlla ni walaw anna katab naa alayhim nee su fekkoonte ni digaloon naa leen an a anfusakum ni leen rey leen seen bopp aw ixriju wala ngeen génn min diyaarikum ci seen kër yi yàlla nee na maa leen xam bu ma doon uti fiem ba ut léegi naan leen léegi daal li ma leen digal mooy rey leen seen bopp wala génn leen seen kër yi nee na su leen ko doon digal maa faaluuhu illa qalilun minhum nee na duñ ko def lu ñu néew ñoom rek laay sant ñu bañ faa nekk di hésité ke def waaye ñi ëpp ci ñoom da naan defuñu ko du ñu fi rey suñu bopp yàlla ni walaw annahum dootale ñoom nag faalu bu ñu defoon maa yuaduna bihi li ñu leen waare bihi ci loola la kaana xayran lahum moo doon gën ci ñoom washadda tathbitan mooy doon gën a dëgëral seen saxwaay ak seen ngëm gu dëgër mooy koy dëgëral waaw moo leen di dëgëral ci seen pas-pas kon loolu mooy am yàlla ni way isan de boobaa de laa tey naahu min la dun naa ajran aziman yàlla nee na kon dey dees na leen may fi ñun pay bu rëy fay bu rëy dina leen ko defal ajran aziman yàlla nee na wa idan la aataynaahum min ladunnaa ajran aziman yàlla nee na kon dey dees na leen jox lu tukkee lu bàyyikoo ci ñun fay bu rëy rëy yàlla nee naa leen ko fay ajran aziman laa leen di fay fay bu la leen seen borom subhanahu wa taala di defal mbokki jullit yi seen tafsirul quran de jeexul waaye waxtu wi ñu amoon nag tàgguwaat nañu kon nañu teg suñu baaraam ci yàlla nee na daal kenn du gëm lu dul nii da ngay àtte woo li la yeneenti bi di àtte te da nga koy nangu mu ne nag gars yi de xam naa leen su ma leen ni woon rey leen seen bopp mbaa ngeen génn seen kër yi dañuy lànk ñu néew ko ci def yàlla nag ni moo ne de bu ñu defoon liñ leen digal di loolu moo doon gën ci ñoom te moo leen di saxalit mooy dëgëral seen i ndëggu ak seen i ndax bu boobaa dinaa leen jox min ladunnaa ajran aziman naa leen fay fay bu rëy rëy bu yaatu defal leen xéewal yu dul jeex allah lii la seen borom subhanahu wa taala wax defal dégg yàlla nañu yàlla defal wax ku topp yàlla ak yonent bi lan ngay am ca loola looy am ca topp yàlla ak topp yonent bi yàlla nañu yàlla defal dégg yàlla nañu yàlla defal topp allahuma shfi mardana warham mawtana waqdi xawaijana waqtim bilbaqiyati salihati amalana wassalaamu aleykum wa rahmatullahi